asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa leen nuyu di leen ziar di leen dalal seen seen YouTube Ben Makhtar di leen di jégalu bu baax démb si ñàkk dugal vidéo bu ñu def dañu xawoon jàpp rek waaye tey dina ñëw indi leen benn secret bu am solo lool lu jëm si wàllu diggante yi ba tey ndaxte toujours rek problème yooyu dañ koy jot mooy message yooyu ba léegi dañ koy continuer di jot. secret yu leen di jox nag ñun ay nit rek leen waaw eh, da leen jox rek yéen a dawar seen bopp lu si des nag yàlla rek moo xam waaw su sottee alhamdulilah bu setu nag ngeen xoolaat ndaxte ni kii def war na xoolaat boppam eh, ba xam ni mu bindee mbir yi baax na ba xam ni mu ko ni nga ko waxee ndax defee na ko noonu wala ba xam ndax nit ki am na ijaaba wala set na wala sell na loolu yëpp tam da ngeen koy prendre en ah, te ñun lu ñu mën mooy jox rek lu si des moom si suñu borom la aju li ma leen di sas daal mooy. secret buñ fi fa joxe si wàllu noob ak wala wàllu rataxal digënté ak yoy defee leen ci lu neex yalla bu fi kenn jël dara diko def si defin bo xam ci si sa coobare bop wala def nako sudu nonu du ku ko def na la leer né do si am li nga bëgg té ding ci si am lu la naqadi lool loolu moom aba mu leer da def mbir mi comme niñ koy waxé ngeen défé ko si sirat mustaqim jublu si juboole and juboole digënté bo xamné neexut ñaar ñoo xamné dañoo bëgg sey te sëy bi xaw a yéex wala sëy bi xaw a tagga témbe tuuti loolu lu am solo la te ku ko def itam yiw rek nga siy jëlee yiw kese waaw sëy moom dafa nekk loo xam ne lu lu lu yàlla daganal la dégg nga sëy bu neex itam dafa baax dana tax diggante bi mën a neex doom yi mën a juddu si jàmm salaam mën a mën a dund jàng si amour waaw kon nag def leen secret yi comme ni leen ko waxee si anam bu rafet léegi secret bi ma leen jox say secret bu am solo la muy wàll fi benn xuluubum ningi koy jëfandikoo mooy lii ngeen gis ni lii ngeen bind da def kon bisimilah rahmaani rahiim wa sallallahu alayhi Muhammad wa nga bind wal fi benn qulubihim yéen a ngi gis xawaatim bi ni ma ko rëddee waaye nag fi ngeen gis ne dama ko bàyyi nii te bind ma fi dara foofu yow mi nga xam ne yaa bëgg keneen kii turam dafa nekk yow mi bëgg yow yow yaay def sa tur ak sa turu yaay après nga tëjee ko allahumma salli ala Muhammad wa sallim yaakaar naa leer na. da ngeen déglu vidéo yi ba mu jeex waxuma ngeen commencé déglu rek ñëw naan ma lii laa bëgg nga expliquer ma ko non non déglu leen vidéo bi leer na expliqué naa ko léegi kaatim bi fi digg bi foofu noonu ngeen gis ne bindu ma fa dara yow mi nga xam ne yaa bëgg keneen ki bëgg la wala seen diggante mu neex wala ngeen sëy wala nangam yow dugalal foofu noonu yow sa tur ak sa turu yaay yow mi nga xam ne yaa bëgg yaakaar na leer na nga jël ko def ko si ndox mu nekk saafara saafara suuf na boo demee ba nga xam ne bind bind na si mën ngaa génne kayit di jël ndox mom def ko si lu muy lekk wala si lu muy naan mën naa nekk jus boisson mën naa nekk euh, lekk bu ko defee kooku mu lekk ko wala mu nan ko lii nag ñaar ñuy sëy moo gën tax ñu joxe ko ndaxte lii ko sëyut tak wala amo moom yenn yenn yenn diggante yi ni do ko mën def ndaxte nit pour nga man am am ci mom accès mu lek mu nan yombut waaye kon mu leen wax rek wàllu diggante yi moom toujours rek euh, ak lu mën ci doon euh, bu ngeen ñu si diggante ak yéen dina xool naka lañ si dimbalante pour que ñi nga xam ne nu ñu koo def te itam xamuñ ñu ko war a defee wala yu demee noonu waaw kon ngeen bàyyi ko xel en daal li ma leen si sasi moom leen rek la da leen def secret yi si lu neex yàlla waaw da ko defee si si njub léegi lii dafa ànd ak ay zikr zikr yi bu leen ko fàtte zikr yi mooy tax mbir yi gën a mën a jàpp gën a gaaw. Euh, jafewul maanaam lu tolloog juróom-ñeenti fan da ngay def zikr astaghfirullah téeméer allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim téeméer nga def wa alfi bayna qulubihim nga def ko 1026 1026 su ma jum mooy junne ak ñaar fukk ak juróom-benn si diiru juróom-ñeenti fan lii jafewul astaghfirullah bi jafewul allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim bi jafewul wa alfi bayna qulubihim bi jafewul 1026 métuut mën mën ngeen ko def da ngeen koy jéem a def nit lu mu bëgg da koy jaral waaye nag foog ngeen am ijaaba waaw te lii si am yàlla ba pare am si aji bu faju kon fexe ngeen koy def incha allah rabi di si des yàlla ko kon tey lii laa fas yéenoon ne dinaa leen ko indil maa ngi yem fii di leen jox di daje ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa